ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu ci turu monsieur le maire Cheikh Issa Sall jaarale ko ci suñu kàddu muy nuyu mboolem ku fi teew di jiital ci nuyoo bi suñu sëriñ suñu xarit sëriñ Mamour Sy borom alaaka bu ñu ko nuyoo teg ci loxoom nuyoo xalifa général di Tijaani sëriñ Babacar Sy Mansour mu njëkkal leen ci nuyoo ñu ñaanal ko mu yàgg fi lool te ànd si ba leer maamam yi ci jumaa yi Tiwaawan ji mu mën koo yeggale di ci suñu xarit koo xam ni mën naa wax ni moo jiite délégation bii muy Serigne Mansour Ka di kenn ci monsieur le maire Cheikh Issa Sall di xaritam nii ma koy taxawaale ci diine ji mu ci taxawal loolu lu ko raw sëñ Mamour sëñ kon bi la fi fekkee mel na ni suñu délégation yaa ko jiite ka ngay dara du Seydi Hadji di lay saroo bu baax di nuyu sëñ Assane Mbacke di lay nuyu bu baax di lay jox nuyoo ahlu Mbacke yëpp. ويليك المتخلف بشير منتخب بشير يعني ومحمود عبد الفلوم تحن البيت دينو سنو حرب سنو ولره عبد الاحد فارمي توتيكو الناس دي مسلمان بوك تاتشو ما يعني فيش كل البو نقول لي وبعض لي مولد سبحان الله دينو délégation bi nga xam ni moo jóge ci honorable Omar fii moroom lu ñu bu baax di nuyu délégation bi ko fi ma ñaay bay ñu ngi lay nuyu di la jox sa mun dooy sama jarbaat yàgg sa délégation bi nuyu bu baax a baax Adja Dib Thiaw maanaam la maire ñu ngi lay nuyu di nuyu mboolem ku fi teew tàggkati yonent bi ñu ngi di nuyu mel na ni tey seen mbokk suma jarbaat Serigne Ngagne Samb moo xewle ci lan la xewle ci kan la xewle kooku moom importance bi Mamour Samb nekkoon sama jarbaat nekk sama xarit yàlla yàlla yokk ay leer ni ko Serigne Cheikh Tidiane waxee léegi Serigne Cheikh Tidiane mii di wax délégation bii ma jiite moom mii mën a naa wax ne moo ko jiite ndax foofu la toll ci monsieur le maire Cheikh Issa di wax ne sëñ Ngaye dangaa taxawal lu am solo suñu xarit suñu wëllëre Mame Mor Samb nekkoon ak ñun nekk nekkin wu rafet di liggéeyal tarixa cheikh di liggéeyal Seydina Muhammad nekk ci waaru de bay ba yàlla yóbbu ko nga continuer mission boobu kon mboolem ku fi nekk tey amee naa la cant ak ngërëm rawatina nag ñun waa kër monsieur le maire Cheikh Issa Sall ndax ngay Mamour Samb dafa féetoon ak ñun mu leer nañ di ci dox guddi di ci dox bëccëg fu mu toll di fa peleneel pour ba lii am tey kon bu yàlla dogalee moom mu làqu nga continuer ne la sax baax di la gërëm sa taxawaay rafet na ci dëkk bi ci diina ji yàlla yàlla guddal sa fan yow ñu ko bokk ñëpp docteur Bakary Sall ñu ngi lay nuyu yow mboolem ku fi nekk tey ci jotaay bi ci musat bi sàmba ku mën a doon yaay kilifa nangu nga ko yaa ngi koy jafe. dëgg la de ñu ngi lay nuyu bu baax. di ni monsieur le maire Cheikh Issa Sall mu ni lépp lu ñu def fi tey moom la wax ndax ka ndax diggante mu Mamour ndax ka diggante mu Ngañ Sam mi toog ndax ka ndax diggante mu Cheikh Diagne Sam mi mu ne kon lu fay def rek moom nga wéttali moom nga gunge waaye lépp moom la wax ngay ñu ngi lay sant bu baax moo tax bi may ñëw. moom moo amal yéene ñëw waaye ku ne xam na fi réew mi tollu tey loolu moo ko tënk mu ne ci yeneen yitte mu ne ma xam naa sa digganteeg Maam Mor sa jarbaat la wax ndijaay rek la doon wooye xam sa diggante ngañ kon wutal délégation comme yow laa dénk lépp lu jëm ci wàllu diine nga représenté ma fa moom laa taxawal fii tey waaye nag dama fay taxawal maam monsieur monsieur le maire taxawal sama bopp bi may ñëw nag mu boole ak madame la maire di jàmbaar. di kenn ci monsieur le maire. dëgg la de muy soxna la maire Roqe Gueye ñu toog muy jàmbaar fàkk tëdd. dëgg la de di jàmbaar ci dëkk bi. di jàmbaar ci diine ji. Mm-hmm. Roqe ñoo ngi bu baax di la gërëm. ànd ak Jibi Samb mii nga xam ne moo nekk suñu responsable politique fële ci liberté 1 Jibi Samb doon liggéey bu baax ànd nag ak sama. doom suma xarit koo xam ni mission bi ñu ma dégg ndax ba ci gunge muy jàmbaar rek ci diine ci xadara bi muy ñàkk sàll nii koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla sama doom yi ah ci loolu ci lañ wax ni ngañ dañ kontaan leen wóor nañu ni Mamour Samb fa mu nekk dégg na yëg na ni li ko metti woon ci àddina muy nagale ba continuer liggéeyu sëñ Amar bi mu nekkee a koy côté yàlla yàlla jàppale yàlla yàlla suturaal monsieur le maire nee na yitteem tey moo doon jàmbaarloo ak yow jàkkaarloo ak yow dalal gan yi bu toog fii ba bis bi jeex mu tàggatoo ak ñoom saafoonte ñoom gërëm na sant la nee du fay defee ni moom la war ci foofu nag ngaañu ci la ñuy wàcc suñu kàddu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم mbokki jullit yi mbokki dëkkandoo mbokki Sénégal waaye mbokki waa Mbour ñu ngi jël kàddu gu gàtt di ko sant yàlla bu ñu toogee fii tey ñun ñëpp kenn ku ne sa làmmiñu boppam moo ko yëkkati wax alhamdulilah rabbil alamin ñetti yoon ndax nag yàlla moo nu may nu fekke tey yàlla nu yàlla may nu fekke ay déwén yàlla boole ci wér sa papa daan wax ne ci dundam dund du dafa doy borom xel mu xellu kon jarul yàggal waaye jar na ab nag ndax fi ñu toll tey ki nga xamanteni si mom lañu andal dom la waye bu dee dom ba paré nak dafa am ay bàyyi mu fekk ci ay bàyyi rek la fekk ci ay mbokam la fekk si muy tuut tànk sëñ Mamour si ñu lay nuyu ñu lay delloo sa ci sa way yalla yalla guddal sa fan barkel say wax ak sa señ ma Mansour kañ ñu lay nuyu mbooloo mi nuyu nañu ñëpp sant nañu ñëpp sama sañoon jaar ci tur par tur waaye ñu baal naa rek ma wàññi nag jox nuyoo bi alaaju seen joxaane mu joxal ñu ko sunu doom ji dara ndax ñu weesu nañ suñu naan yow la teddu moom déedéet ndax bàyyi jàngal ñu loolu bu dee taaw dañu naan jëkkër du jëkk a baax laaj Bakary Samb yàlla ñuy dolli jaam jàmm yàlla dolli sa jàmm wax leen amin amin waay yàlla wéral say cër ndax bàyyi temoon nga mujj puso bi mu réer déedéet wax nañ ko léegi ñun xam nañu la ndax ñoo la sa bàyyi dong moo bokk ak kii nga xamante ni si mooy tey soxna si nga xam ni moom laa gëm mu gëm ma muy sa bàjjan sa jàmm ku ko bëggul yaa xam ah. loolu laay wax fu ma toll yaa xam sa affaire. eh mbàkk waay. Abdoulaye dégg na li ma wax Alima dégg na li may wax. kon bu ñu essayé ba fii morom yi dañu tënk rek joxe kàddu gi. maa nag seen doom yéen waa Mbour. kuy sa bàyyi Ahmed Sarr Mbour la. doy na lu ne ci àddina. kuy sa bàyyi Ahmed Sarr doy na lu ne adresse baa ngoog kon moo am ñaanu bàyyi am ñaanu yaay. ñaanu dëkkandoo am ñaanu senegal waaye am ñaan yu bokkam am ñaanu waa Mbour mooy Abdoulaye Sarr bii ci taw di seen doom yéen ñaanal leen mu gudd fan am wér loolu rek ka mat a ñaan ndax xam naa ni ci kanam tuuti rek ku ko xool di nga ko xoolaat yaram teggi nam suturaam tarangam bi ma joxu doomi waa Mbour ak àddina te ñëpp xekk tarangam bi may ñëw ma ànd ak moom ci góor ñi ma ànd ak ñoom buubu saw mi nga xam ne tey mooy moom muy moom buubu ànd ak yi maanaam nag Adja Alima Touré Alima Touré di mom muy mom ndax yaayi Alima ak papa Ahmed Sarr ñoo bokk ndey ak baay yàlla yàlla dolli jàmm ana ngañ ngañ sàmm kaay wul waaye ma jox la lii dem toog yow jar ngaa wuy si nag yow ngañ laa wax jar ngaa wuy si jar ngaa tatangaal jar ngaa jox lépp ndax loo am sama kër la foofu nga ko yéen foofu nga koy dugal yàlla na yàlla fay ñu waxaat nag ni Abdoulaye dafa wax ne njëkkëram sant la ñaanal la yàlla lépp lu waay am yaa ko amee ci jaamu yàlla kon yàlla mi nga xam mooy may jàmm yàlla yàlla may la jàmm waaye du noppee wax bàyyi te tudduma ki nga xam moo tax ñëpp daje fii mooy sama dutaati bu baax di nga defal lii ma ne nga ko defee nee nee mooy sama baay mooy sama mag mooy maam Mor Samb mi nga xam ne ñëpp ko bëgg dama la gudd ci ndax boo laajee dañ ko danga naan moom laa féetewoo maam Mor ko bëgg ñëpp ko fonko ndax yaram ak tegginam Abdoulaye nee na mi ngi lay gërëm ndax moom maam ci dundam danaa waaxu ñëw kër Abdoulaye Abdoulaye toog mu waxtaan ak moom. su ma neexee ma ne du ko wax kenn moom Abdoulaye day wax ak Abdoulaye wax ak moom mu tàgg toog Abdoulaye ba bu dernièrement bi muy laajte gaañu ñëw na kër Abdoulaye toog Abdoulaye toog kii di alima ak ñeneen ñu ko fekkee fekke loolu kon yàlla ñuy doole jàmm jàmm yàlla yàlla doole seen jàmm Abdoulaye yàlla nga gudd fan ne ñëpp wax amin amin waay am na dama jàkkaarloo yow yàlla nga gudd fan daala bi asan joxat daala yàlla na nga gudd fan. nga baal ma rek daa am lu ma lay ci Abdou Lahad moomu. loolu ma ma ma joxe la yóbbu. feebar tombé tabaski. waaw. loolu mën naa ko seede ñoom aliment bi nii. waaw wax lu baax nag tax man ñambaasal la ci loolu demal. loolu nga mën a joxe di ko joxe yàlla la yomb. yow dara du la jafe ndax doom bu juddoo fu mën a juddoo am ngërëmul bàyyi ngërëmul ndey billaahi di nga gudd fan di nga wér di nga am jàmm barke Borom Tuuba yàlla la yàlla wér li nga yóotu di ko wuti yàlla la ko yàlla jox bu la ko joxee yàlla la ko tëral yàlla la ji wasalaam ñu ngi gërëm ñëpp nag sant naa ñëpp nag tatagal naa ñëpp nag di bu ngay maa ngi leen di gërëm jëlal nuyoo bi joxal ma ko seen mu jox gaa ñëpp

la kon ñu ngi leen di ziare kilifa yi sëñ Mansour Ka ak sëñ Mamour ñu ngi jël suñu ziar jaarale ko seen loxo di nuyu mboolem kilifa yi fi teew yëpp sànni jërëjëf di nuyu sëñ Abdoulaye Ahad Sarr Mbale di ko ñaanal yàlla ñu jotoon yàlla ko yàlla mottali jërëjëf

daa ko wax ñëpp di ko dégg yàlla na yàlla yeesal yéen mu dégg bu ma saan ñëw sama bis sëñ Mansour Ka mii mën na ci seede buñ ko joxee kàddu la njëkk a wax mooy murit yi bala maa wax kàddu nañ matériel baa du wax loolu mu amoon na ko ci sama bis kon bu yàlla dogalee mu dem barsàq nga di ko taxaw taxawaay bu rafet bii tey damaa ñëw ci ñaari fànn Pape Samb dama ñëw ci turu albaar albaar nag boo ci jógee jëm ca muy albaar 19 dara warul laa bare. cee buntu boobu cee buntu boobu sax. soxna aji gi toog muy aji gay yor liggéey bu rëy ci kër soxna Maguette Jigéen di ko doxal. kenn baaree wu ma dama lay leen. waaw wallaahi ndeysaan ànd jox ma ma ànd koog ñoom ngay ci turu Albar Mbaye Sarr di taalu góor gi ak yaatul ci biir ne la mu waxoon ak yow bàyyam daa ko def yasal na ko soxna ma ngeen jigéen ñii seen waajur yéene nañ ci biir. albaar taal oto ànd ñu ànd binaama mii nga xam ne bon liwul dara ñu ànd dikk def forte délégation teg ko ci sama loxo ne naa ko jottali ni ñu ma ko sante woon waaye xam nga ne bis bi xam na waaye am na loo xam ne mënta ñàkk mooy kàddu gi comme dugg na sama loxo moom mënu koo génn te déggu leen xasaay donte benn woy de ko def waaye dama lay wax rek ne la lettre bii ñi la ko jox am na ci yow yi ne loolu gis nañu seen màggal bi passé taxawaay bi ci am noo ko bokk Mamour daa ko taxaw waxtu wala suba ak ngoon fonk lool soxna si kon bisa bu dikkee bu soxna ak ak délégation ñu tànn ma ne ma leen mu sunu ak yi ak sunu lettre rafet na ndax fekkoon na man fi kàddu sama kàddu nag dama koy dëxañ ci biir kàddu yi ñuy bëgg a wax ñu ngi ñaan daal maam moo yàlla na ngi seet Seydina Muhammad ci lu gaaw mu dëkkal ko suturaal ko ndax li mu nekkoon ku ne xamul ko ne jënd jëmu kon nag foofu lay wàccee sama kàddu jox la sama leetar daal di wax ramal wala wenn wooyu Sëñ Tuubaa du ma ko romb ndax damaa bëgg ñii boo léegi bu ñuy nettali ndax vidéo tuddul vidéo wetti woo la tudd wetti woo gisin la raamal waraa nay la fattilin musrina law sëriñ Bamba nee wal fatilu in rasulillahi xaraaru na ñëpp def nii ñu màggal Seydina Muhammad رام الورى بين فتن مسلمين لوا أنا صوتي سيفالو والفضل إن رسول لله خرار سيد بابا نينا سيد بابا نينا باي سيد سالي ومكينا رام الورى نيلا فتي مسلمين لوا rasuul billaahi xaraar sëñ Bamba ko wax raame wara nay na fatti ñun muslim nana ku sopp sëñ ku sopp sëñ ku sopp sëñ Fallu wan fàttulu inna rasuul billaahi xaraar foofu laa yéene sama kàddu. nee na bu moom sàmm nga. na moom moom nga mii nag. ruslawul magam ruslawul askanam te matal nay kóllire yu démb yu alaaji maam moor ba noppi nag njabootu maam moor jag jënul ko lu ne ku maam moor defoon kilifa def na la ku maam moor amoon ci kóllire ngay fexe ne ba am lan teg yow otoom bi du toog guddi du toog bëccëg man daanaka mën naa ko jur kon dara lu ma wax lu dul dëgg mais maa ngi ci Seydina Mohamed ñi moom leen tëlun ñëpp maam ku la ci gën a taxaw taxawaayu ginnaawam ngeen taxaw nga yéene Mamor lu ne defal ko teraanga bu ne bëggal ko sa bopp waaye góor soosa moo jaroon a àndal dundam gépp ci wàllu lii ngay yëngu am na lu tax da ngeen a ngir yàlla akub yonent ngañ jërëjëfati sàmm tey kuy sa mbokk ci deret ci meen wala geño nawaat na la xam nga lu tax man ngaa luye baas yi luye siis yi mais doomu aadama yi fi ñëw yëpp Mamour génn àddina sabab nan ba nit ñi ñëw mais boo yàccaaraloon bu demee naa ndax kii nag ñàkkul fayda te li bëgg la ko yëg mooy waa jiy dox lu bopp Ibou Sakho yaa ngi koy gërëm benn moom délégation ak soxnaam mais moom mii sama rakkal sañ naa ko dellool ni mi ngi lay gërëm junni ndax diggante ba buy rafet ba tey dafa am lu ko suuxat te sàmm ñoodu nag suuxat la monsieur le tànk ñëw yii nga ñëwee yal nay fajug aajo ci yow yal nay defaru sa àdduna yal nay say defaru yàgg ñi nga àndal ak say soxna gërëm nan la sant nan la kontaan nan ci yow xanaa di la ko dénkaan na nga jàppante woon ak magam ja ñun ñii kilifaam ci turu Ousmane Bam yii di sunu kilifa ñu ngi lay sant ngañ xoolal jëf ju rafet ji loolu mu la defal lépp ci suuf fi mu toll ni mi ngi jël xaalis di dugal sama poche bëggul ku ko wax teraanga yi muy indi bëggul ku ko wax waaye gisuma ci téere yàlla yi jëf rafet cant araam ku baax ku gor nga xam ne nag sa xarit yëpp ñëw na mu jàppale nag monsieur le ministre forces armées Omar yu délégation ñëw nañ fi jëf li nu mais bi ñuy daataa ñëw Abdoulaye Sarr dafa taxaw taxawaay bu rëy ak meeru dëkk bi di Cheikh Issa ak képp koo xam ne yaa ngi ci defar bi rawatina Maguette Sène sa frère ak Pape sa bi mu nag wax ci moom junni at du tax mu parce que dafa dëkk ci département bokk ci ñi defar département borom yëreem bi wóolu ko yaayam di Binta Ndour dafa jàppoon sama loxoom loxoom ni ma kii sa rakk te ku ma amoon sopp ko Ibou Sakho sopp ko ñun ñii bokk ak ki ci mag ba gën a ndaw ñoom ñépp ñu ngi lay gërëm mais maa ngi lan nag ay mbokkam seetaan yi rawatina njabootu boppam mu njabootu alaaji seet sam te taw bi toog ne di docteur ba ñun suñu dooma dudul seede lu nu xamul bàyyam dafa génn àdduna mu woof néegu bàyyam askanam lum ci man ci lu baax def na jox directif rakkam Cheikh Ahmed Tidiane am njabootu Cheikh Saabu gépp te bi mu koy def Ibou Gueye Diop a ngi toog Alaaji Moussa ngi toog papaam Asala ngi toog ñun ñëpp ñu toog ñu ngi xamal ni ñooñu ñëpp lañ leen santoon def nañ ko mbokkaayu soxna ki ne fay amul ku des sëriñ bi daayira mutaxabina fillaahi ñi fi war a def kenn desul man nag dama koy réj dama ko soxna Maguette Ndiaye sopp na bi di doomu waajur wu tedd wa Ibrahima Ndiaye borom ay dumaadi sa leetar ñëw na sa jëf ñëw na nga nag baax rek a tax nga tey jii dama dul yàlla mënuma nekk ca kaw nekk ci suuf yenduwuma ci dëkk bi te bi may dem waxtaan naa cee moom muy sabar mu nagul na parce que couleur yi dañ koy sàmm lii ba ko maam Mor dooree ñoo ko ànd bu tudde ko sa xarit l'honorable député président parti bu mag boobu nga xam ne lu jot yomb El Hadji Omar Sy bienfaiteur de l'islam ni ko war nag dama la ko tudde à vie sa jigéen faat faati ak képp ku yëngu ci politique ci dëkk bi rawatina Cheikh isaa monsieur le maire yabal na ay ndawam département bi yëpp kenn mënta ñëpp waaye waa waa dereti Seydil Hadji Malick yi àndoon ak Maamoor di ko wéttali ci biir ak ci biti Mouhamadou Mansour Ka léef la fi jóge Ibou Sakho xam nga lan la wax gis nga wax nitu yàlla buy wax da nga koy déglu dafa am ku ni wax Mbaye Ndiaye dafa génn àdduna Ousmane Gueye ñëw ca dëj ba ni Mamadou yow la sa baay dee wee Sadou na xam ne sa baay ngi dund. siiwee nag ak ci yeggeel dinañ la wan ni yaa fi ne nekkoo fi kii moo fi moom moomu mu wax léegi Babacar mi taawu maam moom ne ko sa bàyyi déewul sa bàyyi yii bul gaawtu bul bëggit bul gis sa bopp toppal ña nga war a topp lu la war a yegg si dina yegg si yow kon bu la toppee yal na ko yàlla la fal cat xale yi dañ naan bu dëgg ñu naan ko nangam nangam nangam te saytaane yi mel ni man bari ci réew du ñu dem fenn bëgguñu kenn dem fenn te ku topp kenn kenn du la topp yàlla dafa la nga am diggu ginnaaw yi naan am nan ko yow amoo nga yaru lool bëgg sa jabatu mag gi lool lu mu la mës a dénk nga taxawee les amis de ma boo xoolee ñu ngi nii toog taxaw gar la ci biir ci ak ci biti Serigne Mamour Malick Mamour si mais kuko ko gën a gore ci réew mi ku déglu conférence bi un na la économique andil na la ni nit wara développer bopam boppam ak réewam. mu taxabina fillaahi bi jërë jëf alaaji Malick Serigne Sidi Mbacke Cheikh Babacar Diouf nga xam ne taaral na bërëb ba Ibrahima Sakho Thiambo mi ngi ak délégation famille alaaji Cheikh Samb Bakary Mouhamadou diaw Sayar Joxaane oustaz jagn ak ki nga xam moy njagañang kaasa papse waye sunu frère du fi indi karaga bu reuy reuy rëy nga xam ni Omar Diaw ba and ak mamour lepp lépp wat na tax ngan taxaway mohammed Diaw aissatu Ibadu Aysat Ibadu ni tay frère um sa xarit lepp la ci mamour mais teggiwul tànkam alaji Ousmane Ba sunu kilifa sunu xam di nijaay ci ngañ mi nax alaaji Moussa Imam Omar Leena jang di sunu bok Abdou Assis Kan bayi kañ yi wul kenn nak mer job Pape Diouf mer Abdou Sakho alaaji kanji mbay kañ mbokk yi xam nga lu xew ngañ ñi mu tuddul la gëna gëru Ndou nii ngeen taxawoo Mamor ci dund mu dem bar sàtt tey jii ngeen nekk les amis de Pape Mamor yaa jigéen ñi ngeen àndal ñu ngi leen di gërëm. waaye nag jeexal ci ñu ngi gërëm ay soxna. ndax ay soxnaam bi Mamor dénkaane mu ñëw jël ci ay soxnaam xatalum ko siisunu ko defuñu ko wujj te nag ñun ay mag lañu kenn jëraluñu fenn Abbas lu ba dara jóg jur. jox na maam Mor cër rawatina taawam di papa Nogay Diop Ibrahima Diop yàgg sama ak El Hadj Moussa Diop li nu waroon a wax lépp ku ne xam na ni cër bu rafet ak yar ak joxe cër mais mënoon nga ma ne gannaaw fa nga yendu na nga dem toog te fa ma demoon nag kóllëre ma fa tey maa ngi waroon a ànd ak ñoom ngeen sëy wax nan lu ne man leen du ma xëy ci yéen gont ci yéen maa ngi dem ci sama yëfi bopp wéer a dire jërë jëf li la waroon a ëpp na fi mu toll bu ka yéene nan la ko njaboot gàngo jasaakumu laa kontaan waa jërë wal maxmu laa waaw yaa rasulallah foofe baladun bi zamsi numu waati atrahat يا ندام ولم ترى في الوجود وفولا واو يا رسول الله وترى عنها ليك طيبة مجلوة وبرأسها من نوره إتلي لا واو يا خير خلقه سرن مودا نينا صلاه وتسليم فلان من دري سرن مودا نينا احل لروحي بكل يوم مؤمله زيارة يا نحمي والامي والامر وفي بك يا رسول الله كي téere bi wax yaay maami aadama maamam lii wër na yàllaawu yaa rasulallah sa maami taar yooyu billaay yow yaay seen jant ñooy say bajar yaa seydi yaa rasulallah yàllaawu yaa rasulallah sa badiri wan jalah lana sidr hatta dima biya ya rasulullah kima rasulun kima habidun habidu muhammadun kima nabiyun sama fawqa sima kain ya rasulullah huwa da'adu usma'a muizallu bisirihi yamunan billah mannin wa Bilai Usman de du bilai Usman a way billaay Ousmane de Ya la mujje ya Rasulullah, ya Allah. ya jërëjëf